chantier bi société bi Modou Ndiaye moo ko yoroon Modou Ndiaye gas fondation bi ci laa bokk ñu ko départ sept ren chantier bi ñu liggéey be ci digg bi ñuy arrêté chantier te waxuñu ma ma bàyyi bagage bi ñi ma denk ñu njëkk njëkk tasaaru ñoo ñu yëpp dem ma toog at yu mat gisuma ku may laaj ku may ndox naan sam pour am ko problème yalla rek mo xam ni may dundé ma toog bu yag El Hadj moy maçon mo du Ndiaye mo chef du chantier mu ñëw mu ne day jël étain yub ko dem jaay ma joté ak mom tombé jour dimanche jour dimanche bobu ma dem inspection de travail fekk jour dimanche duñu ñu liggéey ñu ne ma da nga dem ba suba lënd nga ñëw ma ñibisi ma fekk mu jël étain yi nekk école polytechnique yóbbu ko fii ba Kébémer lundi ma xew yeew ma dem inspection euh, de travail ñu convoqué ko mu ñëw ñu ne ko kii mu ne danga ko jote ak moom ci jël bagage dañ ko yoral xaalis te fayuñu ko mu ne bagage bi du dem. jël bagage bi yóbbu mu ne man bagage bi maako ko moom dégg nga léegi bi ñu tàggoo foofu inspection du traway foofu la jaar dem ba tey ñëwaatu dafa war a ñëwaat jëlaat yeneen bagage yi ci desoon bétonnière yi dem jaay ko. Fofla la mujj daw dem bet ñu indi benen beneen waa ji moo encore yagalé ci bi ñu ko Isa bi koko indi kooku mu waji. mak benn waji ji ñu ko wax euh, ki mu ngi Dakar Rasim ma xëy bi benn jour Rasim woo ma sama tel numéro mu ne ma ya nek ci sànce école polytechnique bi mune ne ko waaw mu ne ma kan mo la jëlo liggéey ma ne ko Modou ndjay ma liggéey mune ma ana Modou ndia mané ko yalla rek mo xam fi naaji di koy timi heure bi man mënu maa xam fi mu fété pour ki man ci lima deug ñu né rek dem na bitim rew mune ma est ce que bi mu la jëlom première mu ngi la fay mané ko ankay mu ngi ma doon fay dé mais bi mu arrêté sànce té waxuma dara ma togu ñett at yu mut yu mata sekk sëkk gisuma ndox gisuma ku may laaj affaire ba té ñi miuma bagage mu ma bagage bi dem keneen jël ko man lañu top sal ci bopam lay waxal ni bi ma koy ñaan ñaan population Sénégal autorité senegal fii Sénégal la ku liggéey fay ko ñàkkam Macky Sall dimbal ma ma jotali ma moom même bu fekkee mënu ma may dimbal ma ma jotali ma moom son naa de sama kar ñemewu ma teg tànk bu ma tegee tànk yóbbu ma sandarmo bi pour que dañu ne kii saay-saay la day leb alal jàmbur bu pare du ko fay te fekkee du lool bi ma juddoo ba léegi xamuma jiku saay-saay ku ma leb ma fay mais bu ñu la defee nii